ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم هم فهم لا يجهون أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قلنا بن سنتي الله جلتي ننتبه صلى الله عليه وآله وسلم نيوان بتيجي كتاب الأذن والجامع الصحيح بعد إمام أبير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه جسر ننتبه سنجتابي ويسو بابون hal yaltafitu li amrin yanzilu bihi aw yara shay'an aw busaqan fil qibla bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ndax def nag gestu maanaam am mbir boo xamante ne dafay wàcc ci ak nga xamante ne mooy ci moom maanaam mooy aji julli ji wala boog bu fekkente ne nit ki dafa def dafa gis dara ci kanamam wala ci wetam wala ci wàllam maanaam ndax dana ko mën a xool wala mu nekk koo xamante ne dafa gis ab tuflit ci kanamam tuflit ci kanamam ndax dana ko maanaam euh, dana ko xoos wala lu muy def loolu gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidna Sahl ibn Sa'd as taala anhu mu nekk taaliqa nga xam ne sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu bi mu gisee maanaam dafa gistu dafa xool ci wàllam daal di gis yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gisoon nañ tamit xadiis seydna abdullah ibnu omar ibnu alxataabi radiallahu taala anhuma bi nga xamante ne moom lay wax ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa gisoon nuxaama maanaam ak xaaxtandiko ci bii ci xibla bi fekk mu nekk di julli di kanamu ci kanamu nit ñi mu daal di koy xoos ginnaaw ga mu paree nag ci la daal di wax ne da ci la doon wax maanaam luy tegtal ne day tere E, ne ñuy tufli ci kanam nit ki ci kanam ci kanam ci li da julli maanaam ci xibla bi nit ki rawatina su fekkente ne day julli mu ne inna ahadakum ida kaana fi salaati fa inna allaha qibla wajhi falaa fi salaat mu ne su fekkente li naka kenn ci yéen su fekkente ne day julli nag woo maanaam li wér bu woon mooy nag buur yàlla subhaanahu wa taala moom moo jàkkaarlo moo nekk ci wàllu maanaam fi nga xamante ne moom mooy xar kanamam kon nag bu mu tuf li bu mu xaxtandiku fi nga xamante kenn ci yéen fi nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom moo dëgmal moo jublu ci xar kanamam bu fekkente ne dafa nekk ci biir julli gisoon nañ ci naka noonu xadiis sayyidina anas ibnu malik radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw fekk jullit ñi di julli jullik fajar maam jullik suba mu nekk seen mujjantelu jullik nga xamante ne moom la ñu gisee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw fekke ko waaye nag teew maanaam moom jiitewu ko dafa taxawoon Seydina Abu Bakar radiyallahu taala anhu moo ko jiite mbégte gi nga xamante ne moom la àndaloon ci gis gi mu gis lool moo tax mu daal di muuñ ree sallallahu alayhi wa sallam nit ñi daal di koy daal di xool daal di koy xool maanaam eh, dégg nga loolu moom mooy li nga xamante ne tamit xadis la buy tegtale mbir moom gisoon nañ ci bu yooyu yëpp maanaam kon mu nekk loo xamante ne lu mujjanteel ak li ñu gisoon la ci yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllu yi nga xam ne ñoom la ñu mayee te yooyu ñu mayee du yàq li nga xamante ne moom mooy alxusuu fi salaa maanaam moom mooy torox lu gën a kii di torox lu ci ay jërëm ci biir julli muy jëf yo xamantene ay jëf yu ndaw la wala bok xol bo xamantene xol bu ndaw la ak yu mel non ànd ak ne lolu gënul manam waye nak bu fekkante nak dafa am lu ko waral lool mom moy tax ñu daal dikoy maye comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci suñu jotaay yu weesu walillahi alhamdu minna gisoon nañ tamit ba wujubul qiraati lil imam wal ma'mum fi salawaati kulliha fi lxadari wa safari wa maa yujharu fiha wa maa yuxaafat loolu gisoon nañu maanaam mbëmbëstal bi nga xamante ne moom moo ci aju woon te gisoon nañ masala yi nga xamante ne ñoom ñooy ci lu ci lu ñu jo maanaam ci lu ñu ci moom moo nekk ci buntu yi diini te mooy bunt bi nga xamante ne moom mooy waxu ci wàllu war bi nga xamante ne moom la jàng alquran war ci imaam bi ak ki nga xamante ne mooy ma'muum bi waaye fii mu daal di tudd al imaamu te mu tudd ma'muum bi te tuddul al munfarid ndax xaalu ki nga xamante ne moom mooy julli ñett la xaal bu njëkk bi moom mooy mu nekk imaam ñaareelu xaal bi moom mooy mu nekk ma'muum ñetteelu xaal bi moom mooy mu nekk munfarid maanaam mooy julli moom kese maanaam te bu boobaa du nekk imaam du nekk ma'muum waaye moom kese moom mooy julli loolu tuddul xaal boobu ndax xaalu kooku moom ak xaalu imaam bi ñoo yem loolu moom moo tax tuddaale wu ko waaye ci julli yépp nag dafa war a tari loolu gisoon nañ tamit wuute yi nga xamante ne moom la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim woon. ci ki nga xamante ne moom mooy ma'muum bi ci tari gi mu war a tari maanaam sooratul fatiha wala boog tari gi nga xamante ne moom lay tareendoo ak imam bi su fekkente ne day tari maanaam julli gi ci suuf lañ wala boog julli gi ci kaw la comme nag ci teqantal gi nga xamante ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna naka noonu ci julli yépp la nag maanaam nag comme ci julli teew ak naka noonu ci julli euh, euh, tukki euh, ak li nga xamante ne moom la ñuy Euh, maanaam moom lañuy ñuy e, biral ci julli ak li nga xamante ne moom la wax ci suuf ci julli ci leeral bi nga xamante ne moom lañ gisoon ci suñ jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal na maanaam ne jullik euh, teew ak jullik euh, ak ak tukki maanaam ñoom ñaar ñoom ñoo yam ci war bi nga xamante ne moom la war a jàng alquran ci biir julli gi Euh, gisoon nañ tamit xadis yi maanaam buntu boobu gisoon nañ ci masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju woon tamit ci njàngum faatiha euh, wala ak yenn yi nga xamante ne wow dafa war na ak yi nga xamante ne maanaam ci ma mamuum bi ak ci imam bi insha allahu taala bu amee yi ci des yoo xamante ne xëy na jotuñu ko woon a leeral ci buntu boobu insha allahu taala dinañu ko leeral ci suñu yegsee ci biir xadis yi insha allah من قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا موسى تمموي الإمام أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري الحافظ التبو زكي رحمه الله تعالى دوا بصرة مؤمن جن أبن تيوير رجل أتو 223 جنة قد ينمتك صلى الله عليه وآله وسلم imam al bukhari eh, eh, imam eh, abu daud ñom la nek seen serigne waye ay hadith am ñi ngi ci kutubu sittah mu ne qaala xaddasanaa abu awaana te moom mooy waddaax ibn abdullah al yashkuri rahimahullahu taala ci kutubu sitta nag moom rek moom mooy nga xamante ne moom lañ ciy dàqantelee abu awaana am na nag beneen abu awaana waaye kooku mooy borom mustaxraj yi kooku bokkut ak waddaax ibn abdullah al yashkuri bi nga xam ne moom mooy abu awaana moom mi ngi génn àdduna cent soixante-quinzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk waa basara نك حافظ أي حديث نك كتب الستة من قال حدثنا عبد الملك ابن عمير آه، تي مومي ابو عمرو دنجو خامد ابو عمر عبد الملك ابن عمر ابن سويد ابن جاريه القرشي رحمه الله تعالى موم وكوفه رحمه الله تعالى موم ميغي ген ادنا تي وير ذو الحجه اتوب 136 غيناو غدا يننتي صلى الله عليه واله وسلم naka nonu mom mi ngi am téeméeri fekk mu ngi am téeméeri at ak ñett manam 103 ans ay haditham tamit ñi ngi ci kutubu sita mom tamit imam la rahimahullahu taala an jabir ibn samura te mom moy sahaba bu màgg boobu radiyallahu taala anhu di abu abdullah dañ koy wax tamit abu khalid jabir ibn samurata ibn junadata radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi موي ابو عبد الله السوائي العامري رضي الله تعالى عنه موم نين ادنا 66 اني غيناو غدا يننتي صلى الله عليه 66 اني نين غين ادنا 66 اني غيناو غدا يننتي صلى الله عليه واله وسلم مو نيك صحابه بو ماغ صلو تمام 146 حديث ا ميغي ا ميغا خامل صحابه البخاري ومسلم دوبو نتي نياار حديث imam al bu muslim moom moo wéetoo ci ñaar fukki xadis ak juróom benn ci xadis sayyidina jaabir ibnu samura radiyallahu taala anhu waaye imam al buxaari yi wéetoowul ci moom benn xadis wëlliif imaamu muslim rahimahullahu taala moom nag moom ak baayam yépp ay saxaaba lañu mu nekkoon saxaaba di doomu saxaaba radiyallahu taala anhuma moom mu ne annahu mu ne qaala annahu qaala mu ne shakaa jàmbat na ahlul kuufa waa kuufa ñoom ca dëkk la bu nekk ca iraq comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee moom jàmbat nañu saadan ci saad ibn abi waqaas radiallahu taala anhu moom mooy sayidna abu isxaaq saad ibn abi ibn abi waqaas Ah, te abu waqaas moom mooy malik malik ibnu uhayb dañuy wax tamit ne ibnu uhayb la ibnu abdi manaaf ibnu zuhrata ibnu kilab maanaam kon foofu la bokkee ak yenente bi sallallahu alayhi wa ci ndey ak ci bàyyi dégg nga muy saydna ah, abu ishaq ah, mm, mm, dégg al qurashi al zuhri al madani summa makki wala boog makka la dëkkoon te gannaaw ga maanaam ginnaaw ga mu gàddaay dem madina radiyallahu taala anhu e, moom mooy maanaam fekke na badar ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk a dugg ci lislaam e, te moom e, mooy ki nga xamante ne moom mooy juróom-ñaareelu ki nga xamante ne moom moo dugg ci lislaam radiyallahu taala anhu bokk ci fukk yi nga xamante ne ñoom ñooy almubasharuuna bil janna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma looleen seede ci ñoom ne ñoom ni dañuy dem biir aljanna mu nekk nga xam ne moom la ñuy wax faarisul islaam lu tax ngir ne maanaam mooy gawarul islaam ngir ne moom mooy ci njëkk sànni xeej ci lislaam maanaam euh, sayidna euh, salim euh, sayidna saad ibn abi waqaas radiallahu taala anhu ci bi ñuy ubbi nag iraq moom mooy nga xamante ne moom la ko borom bi subhaanahu wa taala dogaloon ne moom mooy ki nga xam ne moom moo dem ubbi ko atal atum fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa ci xilaafu sayidna omar ibn alxataabi radiallahu taala maanaam mu dem ah, ginnaaw ga maam sayidna omar yebal ko mu daal di fay dem xeex ak ñoom ba at mu fukk ak juróom-ñaar ci la daal di maanaam ubbi daal di ah, ah, daal di sam ci dëkk boobu nga xam ne moom la ñuy wax kuufa ginnaaw gi nag maanaam ci mu nekk fa ba ñaar fukkeelu at ak benn maanaam am na ñu ne ñaar fukki at la rek waa ñaar fukkeelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa waaye a siiw mooy ne ak benn ci la ko gaay muy vingt et unième année bi ci la ko gaaña dem maanaam ñëw nag di ko jàmbat ci sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala koo xamante ne ku ñu ku nangu ñaanam la comme ni nga xamante ne insha allahu dinañ ko gis amma li nga xamante ne moom mooy xeex bi nga xamante ne moom moo la bokk jote googu diggante sayyidna Ali ibn Abi Talib ak sayyidna Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu taala anhum maanaam xeex boobu loolu moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne àndutoon ak kenn nanguwuloon ak boole kenn moom mooy borom jaleere yu mag yi ak ngëneel yu kawe yi radiyallahu taala Abi Waqqas radiyallahu anhu mi ngi génn àdduna atum 55 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu am juróom-ñett fukki at la amoon moom nag xadiisam yi maanaam fukk la ak juróom. ñom yo xamne muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari weto ci juróomi hadith imam muslim weto ci fukk hadith ak juróom ñett ci musnad imam ahmad ibn hanbal amna ci 177 hadith loolu mom moy musnadam radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi mom jàmbat nañ ko mom nanam wa kufa jàmbat nañ ko ila umar muy sayyidna umar ibn al-Khattab radiyallahu taala borom jàllale kawe ngëneel yu mag yi ñaar fu maanaam eh, eh, ñaareelu xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa di ki njëkk wax amirul muminina borom ah, mooy ki nga xamante ne maanaam l'islam maanaam bi nit ñi nekkee ci njàqare ak moom mooy ki nga xamante ne moom mooy yëkkatiwaat l'islam taxawalaat ko moom mooy ki nga xam ne bor bi mu duggee ci l'islam la borom bi subhaanahu wa taala yëkkati l'islam mu nekk nga xamante ne bi mu génnee àdduna ngi ci la fitna bu rëy bi doo maanaam fii la fitna bi am tàmbali radiyallahu taala anhu li nga xamante ne moom lañ ko solol ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy 539 xadis yoo xam ne muttafaqun alayhi la mooy 26 xadis imam al-Bukhari wéetoo ci 34 xadis imam muslim wéetoo ci 21 bu Seydina na ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moom mi génn àdduna ci at jeexitalu ñaar fukki at ak ñett ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy borom gëneel yu kawe ak borom jarale jaloore yu rëy ya radiyallahu taala anhu wa nekk alfaaruq ki nga xam ne mooy teqale diggante lu baax ak lu bon ni ki nga xam te ne borom bi subhaanahu wa taala wàcce alquran di ko dëggal di dëppoo ak moom ay waxam ak ay ay ay gisinam radiyallahu taala anhu moom kon waa kuufa bi nga xam ne jàmbat nañ ko moom ci sayyidna Umar ibn al-Khattab maam ñu jàmbat sayyidna Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu mu ne fa azalahu mu daal di koy mu daal di koy toxal maanaam mu daal di koy euh, jële ci euh, kilifteef googa ci nguur ga maanaam euh, loolu nag li nga xamante ne moom mooy li tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute am na ñoo xamante ne dañu wax ne Seydina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu taala an bi ñu ñëwee jàmbat ko maanaam jàmbat googu moom nga xamee du jàmbat googu moom moo tax waaye Seydina Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu dafa gisoon ne euh, ngir daw fitna ak ngir dàq ko xëy na li nga xam ne moom moo doon gën ci bërëb boobu ak jamono jooju ci anam moom mooy ñu jël ko toxal ko daal di fi indi keneen am na nga xamante ne loolu tamit dañ ciy jàngee kon ne bu fekkente ne nit ñi dañoo jàmbat ci kilifa gi maanaam am koo xamante ne moom la leen teg ngir mu jiite leen bu boobaa loolu ñoom war moom war na koo bàyyi xel. te insha allahu taala dinañu gis ni nga xamante ne tamit noonu la Seydina Omar ibn Xattaab radiyallahu taala anhu doxale eh, li nga xamante ne moom mooy kon bu njëkk beneen bi ci des moom mooy ne daf ko ñeneen ñen koo toxal ngir ne Seydina Omar radiyallahu ci gis-gisam mooy bu ñu tegee ci benn poste kenn maanaam duñ ko fa bàyyi lu ëpp loolu moom moo taxoon mu daal di toxal ki nga xam ne moom mooy eh, Seydina eh, Saad Abi Waqqas radiyallahu taala mu tombeek jàmbat gi am waaye du lekk jàmbat gi ci jëmmi boppam moom mooy li nga xamante ne moom moo ko sababal loolu tamit ngir ne kenn du toxal nit ngir ay maanaam ay ñoo xamante ne dañoo yor seen ay caprice maanaam euh, loolu kenn du ko def loolu bokk na ci li nga xamante ne waaye ni Seydina Omar jëfandikoo radiyallahu taala anhu dinañ gis ne loolu mooy anam ki nga xamante ne moom mooy bi gën mu ne wastaamala mu daal di jëfand mu daal di teg foofu di liggéeyloo alayhim ci seen kaw ammaaran seydna ammaar ibnu yaasir radiallahu taala an di waa ci waa kër euh, euh, euh, waa kër yaasir waa banu yaasir comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon mu nekk koo xamante ne dafa bokk ci muy abul yaqzaan ammaar ibnu yaasir radiallahu taala anhu di makki maanaam ginnaaw ko maam bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo njëkk dugg ci lislaam mu bokk ci nga xam ne ñoom lañ ñooy al mustadaafuuna ñi nga xam ne ñoom lañ doon indil ay coono ak di leen indil ay xat-xat ci biir diine ji moom bokk na tamit ci ñi nga xamante ne dañ leen daan mbugal waaye euh, naka noonu ak seen waa kër ki nga xamante ne moom mooy ki njëkk génn àdduna fekk ci yoonu yàlla li génne àdduna moom mooy yaayam muy sayyidat Sumayya radiyallahu anha comme ni nga xamante ne noonu la siiwee ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim moom Seydina Ammar ibn Yaasir radiyallahu anhu gisoon nañ ay ay jalooreem ci suñu jotaay yo weesu yu yàgg ya radiyallahu taala mi ngi génn àdduna atum 37 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi amoon 93 ans moom mi ngi ci musnad euh, Baqi ibn Maxlad am na ci 62 xadis yoo xamante ne ci ñaari saxiix yi juróom ñoom ñoo ci nekk ci ñaari saxiix yi radiyallahu taala moom Seydina Ammar ibn Yaasir radiyallahu anhu moom la yeneen moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam defoon mu nekk màndarga bi ñuy xamee ci diggante ñaari kuréel yu mag yi muy kuréel bi nga xam ne moom moo àndoon ak Seydina Ali ibn Abi Talib ak kuréel bi nga xam ne moom moo àndoon ak Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhum maanaam ana ñoom ñaar ñi kan moom moo ci am dëgg ginnaaw bi nga xamante ne fitna am na moom Seydina Ammar radiyallahu anhu moo nekkoon màndarga bañ koy xamee comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee waaye Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyatu minal muslimin manam mu daal wax ne ay way ay way yërëm na mom moom day ay ndeysan ammar wa moy way way way ndeysan ammar mom day ñi ki ñi nga xamantene ñom ñokoy ray mom moy kureel gi nga xamni ñom ñoo fetterlu ci bir julit ñi loolu mom mo taxon bam bañ bañ ko bañ ko bañ kérok bañ ko euh, boomi ci la ñu bëri ñi nga xam ñoo andon ak euh, Seydina euh, Muawiya ci saxaaba yeeg taabii yu mag yi radiyallahu anhum maanaam ci lañ daal di demee dem fare ji ak maanaam ne eh, xaaral ñu daal dem daal di dem fekk ji eh, dem ànd ak seydna ali ibn abi talib radiyallahu taala maanaam bi nga xamante ne kon moom mooy eh, sayidna ammar radiyallahu anhu bi nga xamante ne kon moom lañ fa teg moom it fa shakaw ñu daal di jàmbat maanaam mooy dañoo jàmbat léegi li nga xamante ne moom lay wax fii maanaam mi ngi aju ci li ñu jàmbat ci Seydina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu taala mu ne fa shakaw dañoo jàmbat xattaa mbéte zakaru ñu tudd annahu naka moom kat laa yox si nu xamut maanaam mënuta rafetal yu salli di julli maanaam mooy xamut nu nu jullee maanaam ñu jàmbat naan waaw moom daal lii moom lii moom lii ba ni ah, xamul sax nu ñu jullee bokk na ci liñ ko doon jàmbat mooy ne seen marché bi dafa nekkoon ci wetu këram maanaam ñu doon mu leen doon tere nag ne bu leen maanaam nañu wàññi coow li wala bu ñu fa wax maanaam ak yu mel noonu ngir ne moom daa war a noppalu bokk na tamit ci li nga xamante ne moom lañ ko doon jàmbat mooy ne dañ doon wax tamit ne ah, dafa dafay dem di rëbbi ji ak yooyu maanaam moom moo ko yitteel ba tax daal yu bëree bëri du ci taxaw ci nga xamante ne moom la ñu war a taxawee ak yu noonu. maanaam bokk na ca ci luñ ko jàmbate mooy du julli léegi mu ne fa arsala mu daal di yabal ilayhi ci moom fa qaala mu ne moo tax si yéen sayidna euh, Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu ñëw rek diglu leen ñu ni waaw ha moom lii lay def rek ñu ne acca kon dem nañ nañ nañ nañ ko toxal déedéet waaye dafa yabal fi nga xamante ne moom mooy foofu mu ne euh, mu laat mu ne yaa aba ishaq maanaam mu woo ko mu mu mu woo ko mu mu daf ko yabal woolu ko maanaam mu ne ko lan mu ne ko yaa aba ishaq mu ne ko waaw mu ne ko inna yow aba ishaq maanaam loolu woote la goo xamante ne maanaam daf koy woo ngir yëgal ko maanaam ngir ngir ngir màggal ko maanaam ndax kun ya kuñ koy woowee dañ ko koy woowee ngir màggal ko loolu tamit bokk na ci liñ ci xamee mooy ne sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa fonkoon ki nga xam ne mooy sayyidna Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu te loolu itam dafa nekk loo xamante ne lu war la ci diggante euh, maanaam ñi nga xamante ne Euh, ñoom ñooy kilifa yi maanaam mooy fonkante googu noonu moo boobaa moo tax mu woowee ko noonu ni ko inna haula naka gaa yii day yasamuna mën a naka ñeet ñooñu mu ne waaw mu ne ko yasamuna ñoom de nee na ñooy an naka naka yow laa tax si nu munoo rafetal tusalli di julli maanaam munoo ah, maanaam laa yox sinu salaata wala laa tax sinu tusalli li mu tekk rek mooy mënoo julli julli gu baax maanaam loolu qaala abu ishaq sayyidina saad ibn abi waqas radiyallahu anhu ne ko amma ndax maanaam loolu moom mooy da koo gaaral mbir mi ni mu demee maanaam loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom kilifa bu fekkente dañ koo jàmbat mu daal di wax tamit exactement li nga xamante ne moom lañ ko jàmbat te loolu ci ñépp la maanaam muy maanaam nit ki tamit day war di def bu ñu ko nettalee mbir mu daal di koy jottale léeg-léeg nag du laaj mu wax lépp comme fii nga xamante ne dafa wax waaye waxul lépp li nga xam ne moom la wax rek moom mooy li nga xam ne moom mooy euh, li ëpp solo te moom mooy julli maanaam nga xam ne dafa tënk lépp maanaam kon du obligé nit ki di dugg ci yenn détails yi ngir wax ne lii lañ lay jàmbat jàmbat nañ lii jàmbat nañ lii jàmbat nañ lii déedéet maanaam globalement lii lañ lay jàmbat ak lii ak lii maanaam bu fekkee discours bi une heure de temps la woon itam yow boo koy waxaat mën ngaa yem rek ci cinq minutes maximum ci maanaam wax ne en lii ak lii ak lii la ñuy jàmbat maanaam bu boobaa ñu daal di koy tënk. ba nga xam ne moom la wax lool mu ne ko nag moom it mu daal di wax di di di lay mu ne am ma ana ndaal man mii maanaam mooy ah ñoom day loolu lan wax waaye man li xew ci sama mbir mooy ne wallahi waatal naa la ci yàlla maanaam loolu tamit bokku na ci li muy tegtale moom mooy ne nit ki mën naa waat te fekk waat loo wuñ ko su fekkente ne wax ji dafa am solo lool te it mu nekk loo xamante ne euh, euh, njariñ ga ciy juddoo maanaam mooy day setal deram ci lépp loo xamante ne ak xeetu tuuma la wala boog mu nekk yeneeni njariñ yoo xamante ne dana tax nit ñi xam ne lii dëgg la bu ko defee ñu topp dëgg bañ caa jaaree sànku mu ne wallahi waat naa ne fa inni naka man kuntu nekkoon naa usalli di julli biim julli rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam nga gis ni nga xam ne ne julli gi muy julli maanaam du julli goo xamante ne maanaam moom danaa rek julli gi baax na déedéet julli gi may julli mooy gën di julli mooy gal moy julli bi nga xamne mom la ndawal yàlla li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon julli muné ma akhrimu axrimu takaliko deñ an haa wallif ko mu ne ko noo doon julle muné usalli dama doon julli salaatal isha'i julli géej manam li nga xamantene nak mom la ci julli maanaam isha'i wala ñaari salaatal isha'i manam lim ci jublu lol moy li nga xamne ne danañ ko gis insha allahu taala ci ñetti hadith ci ginnaw Euh, maanaam mooy salaatayul ashi yi loolu moom moo nekk ci riwaaya boobu mooy ñaari julli yi nga xamante ne ñooy julli ngoon gi maanaam isha fii tekkiwul gi ngoon lay tekki maanaam moo tax mooy julli ngoon gi maanaam te moom mooy euh, bu ñu bu tisbaar ak tàkkusaan maanaam boobaa loolu lañ ci jublu am na nag boroom xam-xam yi rahmatullah ñu ne amaan na li nga xam ne moom la ci jublu mooy julli gée ak timis timis ak gée waaye li nga xamante ne moom mooy riwaaye bi ñu la wax da koy daal di day daal di leeral ci ne ñaar yim jublu mooy suba ak ngoon maanaam tisbaar ak tàkkusaan mu ne fa arkudu mu ne bu ko defee ma daal di taxaw dal maanaam mooy taxaw bu yàgg fil uula yey ni ci ñaari rakkaa yu njëkk yi wa uxifu ma daal di woyofal fil uxra yey ni ci ñaari rakkaa yu mujj yi lii bokk na ci li nga xamante ne ci la xanaf yi rahmatullah alayhim sukkandikoo ngir wax ne ñaari rakkaa yu njëkk yi moom moo war ñu tari ci waaye am na ñaari rakkaa yu mujj yi tari ci waru ci maanaam loolu daf ñu yóbbu ci beneen masala moom mooy ne tari bi nga xam ne wala boog dinañ ko dinañ gis beneen masala bi ci euh, incha allah masala boobu daañu ko gis waaye ñu gis naa ne xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom jàpp nañu ne tari euh, tari maanaam ñaar ñaari euh, rakka yu njëkk yi ci la tari gi war amma ñaari rakka yu mujj yi moom tari waruti su la neexee sax nga noppi su la neexee nga sàbbaal waaye nag li gën moom mooy nga tari ci waaye warul te loolu lu bokk na ci liñ ci tegtaloo moom mooy fii ne daf ko woyofal maanaam te ñaar yële daf koy tari comme ni nga xam ne loolu euh, waaye loolu nag euh, loolu nag euh, borom maanaam lool dafa wuuteeg li nga xamante ne moom mooy li wér comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala ci xadis naa abu hurayra bi radiallahu taala anhu bi nga xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wa dafa jàngal ki nga xamante ne moom mooy al musi uli yi julleem gi ba noppi bi nga xamante ne wax na ko rakkaa bu njëkk bi ni muy mel mu jàngal ko ci ni ñuy taree ak yeneen yi ci ak ba pare jàngal ko yeneen ponk yëpp def ni ko waf al solaat fi salaatika kulliha te defal loolu ci sa mboolem julli loolu li muy tegtale day tegtale ci anam gu leer ci ne maanaam ni nga xam ne noonu la waree ma tari ci rakkaa bu njëkk bi noonu tamit la waree ma tar ci rakkaa yi ci tegu te lool moom moy li nga xamanteni moy li gëna wér insha allah taala te lool moom moy mazhabul jumhur moy fuqaha u maliki ak shafii yi ak xanaabilay rahmatullah alayhim amma li nga xamanteni mom moy tari fatiha ci ben rakka bu nekk ci yoy nak borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuté nañ ci ci anam dinañ ko leral insha allah taala ci xadis sayyidina ubadat ibn samit radiyallahu taala bi nga xamanteni ci lañu jëm insha allah mu ne qaala ba mu waxee loolu nag nga xam ne lay na gën jaarake ci layin loolu mu daa ne qaala mu ne zaaka lii azzann mooy li ñu mën a njort bi ka ci yow yaa aba ishaq yow abu ishaq maanaam lii daal kon lii tamit day teg ca ne toxaluñu ko ngir euh, ngir ne lay na ci kanamam ba noppi kon toxaluñu ko ngir ne euh, dafa dafa def euh, ne ne dafa jàpp ne ah nañ ko toxal waaye nag daf ko Seydina Omar radiyallahu anhu xamal na ko ne ko lii nga wax man loolu laa jàpp moom mooy li wér waaye fa arsala mu daal di yabal maahu ànd ak moom rajulan benn waay aw wala boog rijaalan ay waay maanaam ñu ilal kuufa ca kuufa fa sa'ala mu daal di am fa sa'ala mu laaj anhu ci mbiru maanaam ni nga xam ne noonu la doxale maanaam laaj gi nan la demee woon loolu lay wax nii maanaam mu ne dafa ànd ak dafa yabal kenn wala ñaar ñeneen maanaam ñoo xamante ne ci kuufa fa saala mu daal di laaj anhu ci moom ahlul kuufa ahlal kuufa waa kuufa maanaam mu daal di koy laaj waa kuufa nekk waa kuufa dama bëgg ngeen wax ma kii naka maanaam ngeen wax ma mbiru euh, Seydina na ibn Abi Waqaas radiyallahu taala anhu walam yadaa te bàyyiwul masjidan benn jàkka illaa lu dul saala laaj na anhu ci ay mbiram maanaam loolu day tegtale ne nit ki bu fekkente ne da ngeen a am maanaam da nga koy laaj ay nit maanaam da nga ko war a laaj ñi nga xamante ne ñoom ñuy borom gëneel yi ñoom ñooy borom ngëneel yi ñooñu ko koy laaj waaye doo ko laaj n'importe qui maanaam doo dem ci dëkk di laaj an saa sàngam wala nga dem ci jotaay ngay laaj mbiri diw sàngam loo leen ci xalaat nga dem ci n'importe qui rek nga laaj ko ko déedéet da xool ñi gën ci nit ñi nga laaj ko nga laaj leen ko ñi gën a maandu te loolu mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom moo tax mu dem ci jàkka yi foofu la ñuy fekk nit ñi gën a maandu ci nit ñi nit ñi gën a mat ci nit ñi moo tax mu dem laaj ko ñooña ñooña nag mu ne euh, Euh, moo tax bàyyiwul benn jàkke ca kuufa lu illaa lu dul sa ala anhu moom laaj na ko waaye yus nuuna ñoom ñëpp tagg nañ ko maarufanti njekk maanaam ñoom ñëpp lu rafet lañ ko tuddal ñu tagg ko xattaa mbete daxala mu daal di dugg masjidan masjid jàkka joo xam ne li bani absin ñeel na ñi ñuy wax banu absa mu ne fa qaama mu daal di taxaw rajulum benn waay mu ci ñoom yuqaalu la dañ koy wax usaamata ibnu qataada moom la waajooja tudd usaama ibnu qataada kooku nag yug naa ñu koy dàkkantelee aba saada maanaam abu saada moom mooy dàkkantelam subhaanallah waaye kooku ba nga xamante ne dafa jóg xaala mu ne amma mu ne ah li nga xam ne moom mooy xa ñii moom wax nga loo wax nañ la ku nekk wax na lam xalaat waaye daal man moom isna shattana isna shattana waaye comme dang noo waatloo maanaam dang noo wax loo daal ñu wax rek te yàlla rekk tax man danaa wax fa inna li am mooy ne saadan saada daal mooy sayyidna saada am na abi waqas radiyallahu anhu kaana nekk na koo xamante ne laa yasiiru du tukki du dem bi sariyati ànd ak ñi nga xamante ne du génn ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy sariya bi sariya moom mooy imam bu fekkente ne dafa yabal euh, ab ab ab ab armée contingent maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ëpp ñi gën a mat ñi gën a baax ci contingent ci ci armée bi ñooñu mu yabal leen ngir ñu dem xeex ji wala boog ñu dem ngir reju ji ngir def agent secret wala yu mel noonu loolu moom mooy sariya loolu nag euh, maanaam du ñu ëpp quatre cent bu buñ mu ne bu ñu ko tuddee sariya mu ne waaye nag Seydina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu ne moom xeex bu jotee moom du dem xeexi ji maanaam day yabal tout le temps day yabal nit ñi mais moom foofu rek lay toog day dem day dem di di di euh, di di di nappi ji maanaam loolu wala di rëbbi bokk moom loolu rek lay def day rëbbi ji quoi maanaam affaire am yooyu moo ko soxal maanaam loolu nag mu nekk tuuma gu rëy ngir ne dafa dàq ci moom ne dafa dàq ci moom ak njàmbaare ba pare askan ne ko koo xamante ne day jiital nit ñi maanaam na ñi ci des maanaam bu dee am na ko ñeneen na ñeneen bu coono dee am na ñeneen ñi sonn waaye moom bu ko dara laal te loolu wuute nag lool ak xaalam ki nga xamante ne moo jiiti woon xeex bi ba nga xamante ne moom foofu Irak moo ko ubbi. kooku moo xam nga ni mëneefu koo tuumaal loolu loolu wax la joo xam ne waxu ko daanu ci sareet la wala kuy daanu ci teen maanaam bu doon tubaab yi dañ naan waxu xamante ne day taxaw di nelaw la maanaam loolu moom maanaam kon mu nekk loo xamante ne euh, waxi caaxaan la dégg nga waaye nag euh, loolu mu nekk tuuma maanaam ne da koo tuumaal ci loolu loolu muy benn mbir boo xam ne bu rëy la buñ ko tuumaal mooy ne ngir ne qualité yi façon yi qualité yi dañoo dañoo wute dañoo dañoo dañuy ëppante dafa am wàll koo xamante ne mooy lépp loo xamante ne dafa aju ci nit ki nga xamante ne dafay faj dara maanaam bi ci gën a màgg maanaam euh, défaut bi ci gën a màgg moom mooy nga dàqal ko maanaam euh, qualité bi ci gën a mag moom mooy ak njàmbaare waaye bu dee nag da ko koo dàqal maanaam ne moom ak njàmbaare am amu ci dara loolu moom mooy ci bunt boobu moom teg maanaam xas nga ko ŋaññi nga ko ŋaññi bi gën a rëy dégg nga beneen bi ci des mu ne wala yàq si moom te du séddale bi saw yeti ci yemale maanaam loolu itam mu nekk beneen xeetu tuuma mooy ne nee na du séddale ci yamale loolu moom mooy kon beneen tuuma bi ngir ne nit kii di séddale fekk li muy séddale da ca da ko daa war a yam eh, maanaam dafa war a yamale ñépp loolu moom mooy li nga xamante ne eh, eh, moom maanaam loolu tamit beneen beneen qualité la mooy xam kenn ku ci nekk ni kii lii la yelloo ma bañ a ma ma def exactement li nga xamante ne noonu la yelloowee loolu ànd ak ne bu fekkente ne ñaari tuuma yu jiitu yi yëpp benn bu ci nekk nañ ko wutal tontu donte bu doon li mu wax dëgg la te moom mooy lan moom mooy bu fekkente ne dafa ne euh, du jiital maanaam moom day yabalaate rek amaan na dafa gis ne loolu moom mooy li gën ci mbir mi. beneen bi ci des moom mooy bu dee suicide de du yamale itam maanaam loolu itam moom mooy ne li gën maanaam mooy dafa gis ne kenn ku ci nekk ndax imaam bi mooy xool kenn ku ci nekk mu jox la loo xamante ne yow loolu nga aajoo. mën na nekk ne yow yow maanaam kii daf ko jox mu jox ko lu gën ngir maanaam fi mu taxawee ngir cër ba mu am ak it ngir ne moom moo gën a soxla loolu tam mënoon naa waaye ànd ak loolu yëpp moom waa ji moom jubluwu ci woon loolu léeg ki nga xamante ne moom mooy ŋàññkat bi ak tooñkat bi ak ki nga xamante ne moom mooy xas nit ku sell ki nitu yàlla bi léeg-léeg dafay faral bi eh, di di jëfandikoo ay mbir yoo xamante ne même bu fekkente ne ne mëneef na ko wutal aw lañ waaye moom du ko wutal wu maanaam tout le temps day jéem a xool na mu gën a ñaawee mu daal koy tegee foofa ànd ak ne la mu wax du dëgg loolu nag moom mooy ñaareel ñaareel mbir mi walla yaadilu waaye du du maandu fil qadiya ci àtte lii nag moom mooy ngàññi bi gën a mag maanaam ne du du bu bu ñuy àtte euh, parce que bu fekkente ne bi ci des maanaam kon bu njëkk bi moom mooy li aju ci wàllum njàmbaare maanaam lépp loo xam te ne dañoo war a taxaw faj ko bu fekkente ne ñaareel bi ci des moom mooy alal ak ni ñu koy toppatoowee maanaam lépp loo xamante ne te bi xas bi gën a mag ŋàññ bi gën a mag ci ki ñu mën a ŋàññ ci loo xamante ne mbirum alal la mooy moom bu ko ko joxee dénk ko ko ne na ko séddale ko gérer ñi ci des maanaam moom maanaam na koy gérer bu baax maanaam loolu moom mooy ŋàññ gi gën a mag gi ñu mën a ŋàññ nit ci wàllu alal waaye bi ci des nag mooy wala yaadilu maanduwul fil qadiyati ci Eh, atté manam loolu tamit manam ju loolu moom moom tam ŋàññe la bu rëy boo xamante ne moom la daanaka mëneefut te ŋàññe nit ci mbir mbir eh, manam ci yi nga xamante ne mooy doxal société lu raw nga ne kii maanduwul manam ak lepp lo xamne dafa aju ci walu eh, atté ak xereñ ak sagesse manam ñaka a lool mom moy li nga xamne moy mooy li ci gëna mag té bok bokk na kon manam li la wax té kon gis nañ ni wax nañ yi waye bokk na ci yeen wax. mooy lan mooy ne mënta julli julli gu baax maanaam xam ngeen ni loolu subhaanallah moom bu mënul julli julli baax julli gu baax kan mooy mën a julli julli gu baax moom mi nga xamante ne ci njëkk ñi ànd ak yenente bi la bokk sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe yenente bi sallallahu alayhi wa sallam boole ko maanaam ci fukk yi gën a màgg te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li mu wax ci fukk yooyu mooy seen tur dañ leen a bind ci arash maanaam ak yooyu mais ngeen foog ne ku mel noonu dinañ toog julli du xam nu muy jullee maanaam euh, loolu vraiment caaxaan la yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga mu ne bi nga xam ne moom la ko xaala sàmm Seydina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu daane ama wallahi waat naa ci yàlla ndaal ay woy waat naa ci yàlla ne la addoo war na giñ naa ne danaa ñaan bi salaasim ci ñett maanaam ñett yi danaa ko ñaan maanaam bi mu déggee seede bi dafa ne ah man de awma lu ma ci wax waaye ñett yi danaa ko ñaan mooy allah mu yow buur yàlla mi yu rafet yeeg ne la yëkkati ko yi in kaana nekk na abduka sa jaam haada bi kaasiban di kàcc su dee kii sa jaam bi day kàcc li muy wax ay explication la dafa taxaw riyaan di ngir ngistal wa somaatan ak ngir déggital maanaam di taxaw ngir nit ñi gis ko ak maanaam maa ngi nii di wanew ak tamit di wax ngir nit ñi dégg ko bu ko defee muy wax nit ah, way moom moo amoon sañ-sañ keroog bi ñu ñëwee di laaj mbiru Seydina Saad ibn Abi Waqaas radiyallahu anhu moom rek moo amoon sañ-sañu taxaw wax dëgg gi moom moo amoon sañ-sañu wax loo xamante ne kenn mu ko woon wala yu mel noonu bu fekkente ne loolu rek ko tax a jóg mu ne waaw mu ne fa atil yàlla na nga guddal umrahu ak ay umrahu ay fanam maanaam guddalal fanam waatil te nga guddal yàggal faqrahu ak ñàkkam wa arridhu te nga gaaral ko bil fitane ci fitna yi maanaam subhaanallah maanaam mu ñaanal ko mu ne dafa ñaan yàlla maanaam na gudd fan loolu mooy benn ngir ne li nga xamante ne ci li ko li ko li mu ko ŋàññe maanaam dafa gis ni nit ñi yi ñuy xéewloo maanaam bokk na ci benn moom mooy fan wu gudd fan wu gudd woowu nag na ko am mais sauf que fan wu gudd léeg-léeg day positif comme léeg-léeg day négatif fan wu gudd du tout le temps lay baax maanaam yàlla na yàlla may na gudd fan wu gudd loolu du ñaan bu baax li ñaan gu baax mooy yàlla na la yàlla may fan wu gudd ko xamante ne day ànd ak ngërëmal yàlla wala day ànd ak jaamu yàlla gu ñu nangu wala yu mel noonu loolu mooy ñaan gu baax waaye fan wu gudd yi kese maanaam bu fekkente ne fan wi day gudd ci biti waaye ci biir mu gàtt ngir ne jaamu ci yàlla defoo ci dara lu baax loolu fan wu gudd taxul ñuy maanaam waaye fii fan wu gudd wi nga ko ñaanal maanaam kon ñu gisee ci ne ndekete ñaan fan wu gudd rek du lu baax ndax kii ba mu koy ñaanal musiba la ko ñaanal. te fan wu gudd la ko njëkk ñaanal muy benn waaye mu ne mu ne waaye ñaareel bi ñu des mooy ñàkk na ñàkk mooy ne kom daf ko tuumal ci wàllu alal itam ne du mën a séddale moom kon yàlla bu dee li mu wax ni du dëgg fay ko fayee ko moom mu na ñàkk maanaam ngir ne ñàkk dafa bokk tamit ci nattu yi gën a rëy yi yàlla di nattuwaate waaye mu bokk tamit ci mbugal yi gën a tar yi muy tegaate maanaam muy ñàkk te loolu euh, moo tax mu daal di ko mu ne na na ñàkk waaye waa ardahu gaaral ko bil fitani ci fitna yi mhm. maanaam moom mooy mu nekk koo xamante ne day day day euh, day day def yëfi ñàkk fayda yu bëri maanaam bii comme que daf koo tuumaal ci diineem ne maanduwul mënta julli nangam nangam loolu yow moom it kon gaaral ko ci fitna yi mooy fitna yi diine yi nga xamante ne ay mbir yu bëri bëri day nekk koo xamante ne du ci man dara maanaam te lii bokk na ci li nga xamante ne day tegtale ci anam gu leer ci ne maneef naa ñaanal nit koo xamante ne daf la tooñ fitna musiba boo xamante ne day aju ci diineem comme ni nga xam ne noonu la Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam bi mu naan euh, euh, euh, bi mu naan watmis ala qulubihim falaa yuminu falaa yuminu xatta yarawul azab al maanaam maanaam ñoom na nga na nga far seen maanaam seen seen xol yi Euh, maanaam nga xamante ne da ngay téye seen alal yi far seen xol yi ba nga xamante ne bu ñu gëmati ñoom bu ñu gëmati maanaam ñoom fee aw na ak ñi ñu àndal mbete ñu gis mbugal mu met mbugal mu tar bi maanaam loolu mooy ne daf leen a ñaanal euh, euh, ne yàlla na nekk yàlla na na leen fitna yi diine dal comme nii tamit loolu la maanaam ngir ne tooñ bu taree ci nit ki nit ki am na droit boobu waaye rek Euh, li nga xamante ne moom la Seydina Saad ibn Abi Waqqas de fii radiyallahu anhu yëfi xilaafa la maanaam ngir ne imaara la yoroon te imaara googu maanaam yor njiital jullit ñi ci gox boobu te loolu noonu ni mu ko yore woon ci zaahir ni la ko yore woon ci baatin moo tax mu am sañ-sañ bi waaye ñi nga xam ne ñoom amewuñu xilaafa ci seen euh, baatin ñooñu euh, li gën ci ñoom mooy ñu bañ a ñaan yàlla nit ñi maanaam ñaanal ñuy ñaanal nit ñi te bañ a ñaan yàlla nit ñi loolu moo gën ci ñoom ngir ne euh, euh, xalifa dafa am ci ay rôle yu muy joué aussi manam dafa bok ci léeg-léeg day nek ko xamantene day yor côté bu côté jamaal bi maanaam côté bu rafet bu taru bi bu ko defé muy ñaanal nit ñi di ñaan yalla jéggalal nit comme ni yeneen bi defo sallallahu alayhi wa sallam ay yalla jéggal leen ñom xamuñu yalla bal leen ñom xamuñu waaye léeg-léeg it mu ñaan ah yàlla nga alal leen yàlla yàlla nga teg leen nangam ak nangam gisoon nañ ko ci ñi nga xamante ne moom mooy waa ah, ñi ñi ñi nga xam ne kenn par kenn ñoom ñëpp badar keroog dañ daanu ah voilà maanaam mu ñaan leen yàlla loolu dafay am ci maanaam rôle foofu maqaama xilaafa gi moo tax mu defe noonu moo tax mu taxawee noonu maanaam nga xamante ne day mën a am yor day mën a yor ñaari facettes yépp waaye eh, moo tax xilaafa kenn mënu koo yor ci sedd kese naka noonu kenn mën koo yor ci tàng kese maanaam ñaari côté yépp ci ngay amee dégg nga fii nag mu ne euh, ñu gis ni mu ne wakkaana moo tax nekkoon na baada ginnaaw gi ginnaaw gi isa su ila suñ ko daan laaj yaqulu mu naan maanaam suñ ko daan laaj ñu naan ko seyxun euh, maanaam ndax lu tax euh, la mu daan def comme ni nga xamante ne incha allahu taala dinañ ko gis ci kanam mu ne buñ ko doon laaj ay waay yow li la dal lii lu mu doon mu ne cheikhun man daal ab màggat laa kabirun bu mag maanaam man daal ku màggat laa rek bu bu mag maftunun ko nu fitnaal maanaam koo xamante ne asaabat nii dal na ma daawatu saadin maanaam ñaanuk saad sayyidina saad ibn na waqaas radiyallahu taala anhu ñaan gam ma ñaan daal moom moo ma dal ah dégg mu ne qaala abdul malik te moom mooy ibn omer bi ñu gis ci kaw mu ne fa ana man raaytuhu man maa koy gis baabu ginnaaw gi xat saqata mu rot na xaaji baaxu ñaari yéeni ñaari euh, ndabi bëti maanaam ñoom ñoo rot ala ay na yi ci kaw bëtam yi minal kibari ngir màggat dafa màggat a màggat ba nga xamante ne euh, yii yii yéen yi fii nii fii yéen yi ne nii ci ndabal bët yi ci kaw ndabal bët yi ci euh, da daan dafa wàcc wàcc wàcc wàcc ba ci bët yi ngir màggat bi mu màggat maanaam ras gi mu ras hmm. maanaam gis naa ko waaye wa innahu te gin te moom de li ko dal bokk na ci la yataaradu da daan gaaral lil jawaar yi ngir jànq si maanaam xale yu ndaw yi jànq yi moom la daan fi turuqi ci mbedd mi yax misohun na mu leen di tàpp maanaam ànd ak màggat na noonu ba yegg foofu mu koy gis muy topp ci xale yu jigéen ñi buñ ko rombee mu leen di tàpp maanaam loolu nga gis subhaanallah te buñ ne ko mais yow lii ngay def ni lan la ba pare mu bokk ci mu ñàkk ñàkk lool ànd ak gudd fan googu ak loolu ko dal te lan xal subhaanallah loolu mooy xeet yi doyadi gi gën a màgg ci doyadi nit mooy euh, mooy ay affaire u jigéen nekk ay ay ay ay ay nattoom loolu mooy doyadi gi gën a màgg ci doyadi nit te moom loolu moo ko dal yaa subhaanallah ngir ngir nattu gu rëy gi mu am ba tax mu jalgati aqu borom subhaanahu wa taala aqu bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi radiyallahu anhum ba tax mu jóg dal ci kaw wax lu ñaaw li ci Seydina Saad radiyallahu taala anhu loolu moo ko dal maanaam euh, te lii nag li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu indi xadis bii ci bunt bii moom mooy ne day leeral ne maanaam tari gi nga xamante ne moom lañuy tari moom mu ne moom man noonu laa doon taree te mooy lan mooy tari ji yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam doon tari maanaam loolu moom moo tax mu indi ko te moom mooy lan mu daal di wax ne ñaar rakka yu njëkk yi dama daan tari yàgg ñaar rakka yi des dama daan taxaw euh, dama daan ko daan woyofal ngir ne tari foofu bu ñu fay tari faatixa rek lañ fay tari te mënef na faa tari kese comme mën nañ faa tari faatixa ak saar comme ni nga xamante ne insha allahu taala dinañ ko gis ci xadis sayyidina abu qatada bi di ñëw radiyallahu القراءة في صلاة الظهر insha allahu taala hadis bi imam al البخاري دينكو اندوات حديث hadis 750 758 770 imam muslim in na ko hadis numéro 453 ñaari yoon imam abu dawud in na hadis 803 imam an-nasaa'i in na ko hadis numéro 1002 ak 1003 imam ahmad ibn hanbal in na ko hadis numéro 1510 1518 1548 ak 1557 kon dañuy gis ne waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imaam at-Tirmidhi ak imaam Ibn Maajah rahimahullahu al-jamii' qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Ali ibn Abdullah te moom mooy imaam bu mag boobu di sëriñu imaam al-Buxaari Abul Hasan Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najiih ibn Bakr ibn Sa'd as-Saadi muy abu muy al imaam Ali ibnul Madini rahimahullahu ta'ala moom muy sëriñu imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala bi nga xamante ne imaam sama bopp ci kanamu kenn ku dul kanamu Seydina Ali a àdduna 161 génn àdduna 234e année ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam imaam al-Buxaari imaam Abu Daawud imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasaa'i ñoom ñoo Muslim ak imaam Ibnu solo wuñ ci rahmatullahi ala al mu ne qaala haddasanaa Sufyaan te moom mooy al-imaam Sufyaan ibnu Uyayna ibnu Abi Imraan euh, al-Hilaali rahimahullahu ta'aala muy Abu Muhammad al-Kuufi euh, di itam waa makka rahimahullahu taala kuufi summa al makkiyu rahimahullahu taala moom eh, mi ngi gane àdduna ca kuufa cent septième année ginnaaw ga daayante bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année جنو قد ينمت صلى الله عليه وسلم أي حديثا نك في كتب الستة عن قال حدثنا الزهري تم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر نك دا كان تلام مم إمام بوما بو أمير المؤمنين الأسان سن مين جن جن جن أدنى سن كم أنا جنو قد ينمت صلى الله عليه وسلم جن أدنى 125e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xadisam nekk ci kutubu sitta mu nekk an Mahmoud ibnu Rabia muy saxaaba bu sell boobu radiyallahu taala anhu muy Abu Nuaym wala boog dañ ko Abu Muhammad Mahmoud ibnu Rabia ibnu Suraqata ibnu Amr ibnu Zayd ibnu Abdata ibnu Amir Amirata ibnu Ali ibnu Kaab ibnu al-Xasraj ibnu al-Xaaris ibnu al-Xasraj moom moo tax nekk al-Xasraj yi ak Ansaar yi رضي الله تعالى عنه ا آه، دنگ ا آه، موم ديوان مدينه المنوره نيك ا آه، ا دنگ نيك كيغا خامني مانام موم موي ا ا غوروي سيدنا عباده بن صامت رضي الله تعالى عنه موم موي كي نجيك غاني ادونا ا دد موم بوكو تك Nu'man ibn Bashir maanaam ci ñu njëkk ci moom mi ngi gën àdduna juróom benneelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi yonent bi wa sallam génn àdduna mi ngi am juróomi at moom la doon wax gisoon nañ ko ci xadiisu mata tasihhu riwaaya maanaam buntu boobu kañ la voilà riwaaya voilà mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu doon sereti dégg nga di foog moom ndeysaan ah, eh, ci ndox mi nee na loolu la mokka ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon juróom benn juróom benn at la gane àdduna ginnaaw gàddaay Yonent bi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-neuvième année ginnaaw gàddaayu bi sallallahu wa alihi wa sallama mu nekk koo xamante ne solo na ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bëriwul comme niñ ko gisee muy xadis bi doon wax euh, naka noonu waaye solo ci abu ci ay yeneen i saxaaba radiyallahu anhum ku mel ne Sayyidina Ubaadata ibn Saamit radiyallahu anhu ku mel ne Abu Ayyub al Ansaari ku mel ne Atbaan ibnu Maalik radiyallahu taala anhu al jamii ak ñeneen. comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko gisee woon naka noonu bokk na ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo soloo ci moom euh, moom ci saxaaba mooy Seydina Anas ibn Malik euh, radiyallahu taala anhu mel ne euh, ñeneen ñi nga xam moom nag mooy taabii yu mag yi muy Raja ibn Haywa ku mel ne Makxuul ku mel ne Abdullah ibn Amr ibn al ci imam sa taabii yu ndaw yi ku mel ni imam az itam ci taabii yu ndaw yi la moom moom lañ ko gis ni moom moo soloo ci moom رحم الله الجميع موم سيدنا عبادة محمود بن ربيع رضي الله تعالى عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه سيدنا عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن صالح بن غنم بن سعد بن عوف بن عمرو ابن عوف ابن الخزرج من الخزرج الأنصاري رضي الله تعالى عنه من أبو الوليد من داقن تلم دي ثم الشامي جناو من يكون شام Euh, radiyallahu taala anhu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy saxaaba yu mag yi bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy noqabaaw yi maanaam comme niñ ko gisee muy fukk ak ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñu yow ci laylatul aqaba ñoom ñoo jaayante woon ak yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam fekke na ñaari aqaba yépp euh, naka noonu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gën a ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yi fekke euh, xare badar radiyallahu taala anhum naka noonu noonu la fekkee mboolem xare yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo nekkoon tamit ki nga xamante ne nekkoon na kilifa gi nga xam ne moom méngoo woon rek euh, euh, maanaam li aju woon ci wàllu Palestine naka noonu dëkkoon maanaam kon Sham la dëkkoon radiyallahu euh, taala anhu mu nekk koo xamante ne tamit ku njool la woon te xawa am yaram tuuti maanaam nekkul ku njool te sew lool waaye dafa amoon njool waaye diggu doomu ci yaram ba pare nekk ku taaru radiyallahu taala anhu Euh, mi ngi génn àdduna ca Ramala maanaam euh, ca Cham ca Palestine Ramala benn bii bi ngeen di dégg ah, euh, dégg nga am na sax ñu ne ci baytul maqdis ci jëmmi boppam ci la génnee àdduna radiyallahu taala anhu moom sayyidna mi ngi gane àdduna trente-quatrième année laata gàddaay gàddaay yenente bi sallallahu alayhi waaye génn àdduna tamit trente-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi صلى الله عليه وآله وسلم موم ميغي ام 181 حديث موي مسندم نيك كو خامتاني جوروم بن ني نيوم موي متفق عليه امام البخاري يوتو تي جوروم تي نياري حديث امام مسلم يوتو تي يينن نياري حديث رضي الله تعالى عنه موم نانا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نانا laa salaata dee julli li man ñeel ki nga xam ne lam jàngul lam yaqra jàngul bi fatihatul kitaab ci fatihatul kitaab maanaam ki nga xamante ne jàngul fatihatul kitaab kooku lanul julliwul xadis bi xadis la bokk na ci xadis yi nga xamante ne ñooy fondement wu xadis yi maanaam ci wàllu qira'a maanaam jàng ginnaaw bi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu indi na xadis sayidna jabir ibn samura bi radiallahu taala anhu diu nettal ni sayidna saad ibn abi waqas radiallahu waxee ni nii la yenent bi doon jullee sallallahu alayhi mooy ñu xam ne kon ñaar rakkaa yu njëkk yi bu julli gi amee lu ëpp ñaar rakkaa ñooy gën a gudd ñaar rakkaa yu mujj yi loolu moom la ci doon tegtale moo tax imam al indi ko rahimahullahu taala amma fii nag muy njëkk war ci ki nga xamante ne moom mooy julli moom mooy mu jàng suratul fatiha te loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, dëppoo ci ne maanaam ci ci njàng fatiha suratul fatiha waaye nag wuute nañ ci waram ak ñàkk waram comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ne fuqaha u xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne jàng farata ne jàng fatiha nekkul loo xamante ne lan la euh, dafa nekk farata maanaam du ponk ci julli waaye nag qiraa gi moom mooy ponk ci julli gi maanaam te moom lañ tuddee ruknun zaa'id wala boog faridatun zaa'ida waaye amma li nga xamante ne moom mooy jàng faatiha euh, jàng faatiha dafa nekk loo xam ne waajib la maanaam dafa war te moom mooy doole ak muakkada maanaam ki nga xamante ne moo ko bàyyi lam koy xañ moom mooy du ko du ko xañ julli gu baax waaye lam koy xañ moom mooy maanaam te du doon bàkkaar ci moom bàkkaar boo xamante ne masal masalan da ko yóbbu sawara waaye li nga xam ne moom lay war ci moom mooy bàkkaar boo xamante ne da koy tere da koy xañ ràmbu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu doy na musiba mm. beneen bi ci des moom mooy euh, li nga xamante ne moom la wax ni ne euh, ñoom lii ñu wax li nga xam ne moom mooy nag lii xadis bi xaqiqatan euh, borom xam-xam yi rahmatullah lu tax ñu wuti ci maanaam tey boo xoolee ku ne ah la salaata li maanaam yaqara bi fatihatil kitaab julli waru maanaam du am ci ki nga xamante ne jàngul faatixatul kitaab boobaa ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, jumhur rahmatullah te ñoom ñooy fuqaha maliki yi ak shafii ak xanaabila rahmatullah ak zahiri yi ah, waa ahlul hadis ñoom ñëpp dañuy daal di dëppoo ci ne dañoo war a jàng sooratul faatixa bu may julli waaye li nga xamante ne moom la euh, ñoom fii la ñuy tegtaloowee fi ñu ñuy tegtaloowee mooy bu njëkk bi moom mooy dañ naan yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax te xadis baa ngi ne leer na nañ ñaareel bi ci des moom mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mosu koo bàyyi ci benn julli maanaam mosuñoo rotal julli ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam julli na te tariwul faatiha muy ñaar ñetteel bi ci des euh, moom mooy xattaa bi muy tere kuy julli ci comme xadis sayyidina abu hurayra bi radiyallahu anhu bi muy tere ne euh, ndax da ngeen di jàng sama ginnaaw ñu ne ko waaw mu ne laa taf alu illa fil illa Euh, maanaam bu leen ko def lu dul xanaa ci faatiha mooy tegtale ne kon faatiha faw dañ ko war a jàng imaam bi jàng ko ma'muum bi war koo jàng hmm. te loolu tamit day dëgëral li nga xamante ne moom mooy mazhabu shafii yi ak xanaabilay rahmatullah alayhim ci ne imaam bi ak ma'muum bi yépp dañuy jàng sóoratul faatiha te it maaliki rahmatullah alayhim wuute ak ñoom lu dul ne bu imaam bi dee jàng da ngay noppi hmm. waaye li nga xamante ne moom la ko faa euh, euh, ki ko laaj alxadrami rahimahullah bi mu ko laajee sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu ne ko mais kon nu may def bu fekkente ne imam bi day jàng mu ne ko iqraha fi nafsika ya farisi jàng ko ci sa biir bopp yow maanaam jàng ko te bul gêner kenn bul wax ci kaw maanaam bul wax wax joo xamante ne dañ koy dégg yow farisi bi maanaam kon muy la wax ne kon ne kon danañ ko jàng te loolu day dëgëral bu shafii yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim xatta dana dëg tamit masabu maliki yi nga xam ne ñoom bu imaam bi noppee dañ ne nga jàng faatiha waaye sinon dañ nekk loo xamante ne dañ koy daal di sib léegi nag mu daal di des faatihatul kitaab bi jàng bi nga xamante ne moom lañ ko war a jàng maanaam euh, euh, euh, ma lu tax xanafi yi rahmatullah gis xadis bi ba noppi ne ah, noo maanaam maanaam du du du du maanaam ne ne ne ne du du du farata mooy ñoom dañoo sukkandikoo dañ ne alquran moo ko wax bu njëkk mën na alquran dafa ne la dafa ne faqra'u ma tayassara min li nga xam ne moom mooy ni jàppandi ci alquran te li nga xamante ne moom la wax kaw bi tamit te da ko doon jàngal julli nu ñu jullee ndax dañu ko woon ni nga jullee du nii maanaam mooy daf ne ko iqra ma tayassara maaka min alquran maanaam jàngal li nga xamante ne moo jàppandi ci yow ci alquran loolu ñu ne loolu moom mooy dalil bu njëkk bi loolu mu yooyu ay dalil la yoo xamante ne dafa leer kon nag bu doon ne jàng faatixa farata la dana ko na nga jàng faatixa ba noppi loolu la koy njëkk wax waaye comme dana ko jàngal li jàppandi ci yow ci loolu mooy tekki la kon jàng faatixa bi du nekk loo xamante ne farata la ci julli loolu mooy ñaareel bi ci des ñetteel bi ci des moom mooy ne baatu xalis bi ñoom luñ ciy tontu moom mooy xam nga euh, benn baat euh, euh, su fekkente ne dañ nan qaida manam dafa am wuti ci borom xam xam moy hal laf al lafzu iza sullita ala al haqiqati shar'iyyati hal yuhmalu an nafyu an nafyu iza sulita ala al haqiqati ala al haqiqati shar'iyya hal yuhmalu ala al haqiqati aw ala ala ala ala al sihhati aw ala al kamal hal yuhmalu ala al sihhati aw ala al kamal lol mom motax parce que xam nga baat bi mooy laa salaata déeg julli maanaam fii ñetti cas de figure moo ci am mooy laa salaata maanaam dafa dàq xaqiqatu salaat wala muy zaat jëmmi julli lay dàq waaw wala déet comme bu ne ah, julli de du am ci ku jàngul faatiha mooy ne possibleul julli mën a exister te nit ki di ko def te jàngul faatiha loolu mooy première firi te firi boobu dañuy gis ne mënta ne lu tax ndax xel du dàq te day am nit ki taxaw di julli ba pare du jàng faatiha xel dàqul possibilité boobu kon bu jëmmi julli gi ñàkk am lay dàq waaye léegi bu boobaa beneen possibilité bi am mooy dañuy wàcc ndax mbir mu ne noonu lay amee maanaam dafa am tamit maanaam grada maanaam ni ñuy gradé ni ñuy ni ñuy degré yi ñuy topp bu ñu waree firi wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wala al xatta al quran wala wax yeneen bi sallallahu alayhi wa waxu nit ñii rek buñ génnee waxu borom mo xam waxu wala et cetera maanaam mooy wax ji dañ koy njëkk teg ci sens premier bi su sens premier bi mënta ne ci la ñuy doog a wàcc ci beneen sens maanaam mooy ne euh, julli du am maanaam est-ce que dañ naan kon euh, loolu mënta ne adduna ba adduna daj ba mu tàmbalee ba fa muy jeexee kenn mënta julli ba bare du tari faatiha loolu du amul. bu boobaa dañuy xam ne ah déedéet jubluwu ci loolu parce que réalité bi moo ñuy wan ne jubluwu ci loolu ñu ne kon ah d'accord kon lan la ñuy dem ñu ne laa salaat laa euh, laa salaata kon boobaa loolu lañuy ñuy taqdir la ñuy nattale maanaam julli du wér lu dul ñeel ki nga xamante ne jàngul faatixatul kitaab loolu la jumhuur wax ñoom ñu ne déedéet ñun suñu re dalil yi ñu indi yëpp day tegtale ne laa salaata kaamila la ci jublu maanaam julli du mat maanaam kon ki julli te tariwul faatiha julli na mais julli gi matul loolu lay wax maanaam kon bu boobaa maanaam nekkul julli gi gën a parfait ci julli yi loolu rek la ci jublu maanaam kon bu boobaa da ngay gis ne ñoom ni ñu gisee ni ñu firi mbir mi mooy dañ koo dañ koo maanaam même hadith bi dañ ci sukkandiku mais dañ ne ah, ñun dañuy jël texte yëpp boole leen te waxe ko noo xamante ne maanaam benn bu ci nekk dana ànd ak moroomam xaqiqatan euh, loolu euh, ci riwaaya xadis bii di ñëw muy bu kaw kaw bi daf cee am jàngal faatiha ak li nga xam ne moo jàppale ci yow ci alquran maanaam moo tax euh, dalil boobu day desee dëgër ci ñoom bi ci des moom mooy ne bu doon xadis sayyidina abu hurayra bi radiyallahu anhu maanaam bi ne ayuma salaatin lam yuqra fiha bi fatihatil kitab fa hiya xidaajun xidaajun xidaajun xayru tamaam bépp julli boo xamante xadis boobu mi ngi ci saxiix imaam muslim mi ngi ci muwatta bu imaam maalik rahimahullah bépp julli boo xamante ne dara ci faatiha rek julli googu dafa euh, xidaaj mooy loo xamante ne dafa teel a juddu te warta woon juddu mooy mooy lu avorté maanaam dafa avorté mooy lu dem ba waroon a mat te matul moo tax mu ne da te te xam nga avortement ku ko def ku ko def doom ji ngi jur du dund loolu maanaam moom mooy kon dafa xidaajun xidaajun yeneen bi saa wax ko ñetti yoon ba pare daan ni xayru tamaam matul maanaam loolu yëpp muy tegtale ne maanaam kon euh, li muy teg mooy loolu mooy wane ne euh, euh, loolu moo koy dëgëral beneen mbir bi koy gën a dëgëral di gën a dëgëral waxu jumhur te mooy wane carrément que julli mënta am lu dul faatiha am moom mooy yenent bi sallallahu alayhi wa dafa wax xadiis qudsi mi ngi ci saxiix imaam muslim mi ngi ci Euh, Muwatta bu imam Maalik tam rahimahullah yent bi lu mu wax sallallahu alayhi wa sallam dafa ne borom bi subhaanahu wa taala dane qasamtu salaata bayni wa bayna abdini sayf xaaj naa julli sama diggante ma nekk sama jaam bi mu nekk ñaari xaaj te li mu tuddee julli mooy suratul fatiha mu ne su waxee alhamdulillahi rabbil alamin mu ne majjadani abdi mu ne arrahmaani rahim mu ne asna alayya abdi dër dem ne bu waxee alhamdulilah rabbil mu ne hamidani abdi mu ne alhamdulilah rabbil mu ne sama jaam ma mu ne sama jaam tagg na ma maanaam beesalaat na tagg gi bu ne maaliki yawmi din mu ne majjadani abdi sama jaam bàkk na ma kañ na ma bu ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu ne hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma saa lii man ak sama jaam ko bokk sama jaam léegi am na lu ko neex bu ne ihdina siraatal mustaqiima siraatal lazina an'amta alayhim mu naa ne haadaa li abdi wa li abdi sama jàmbee ko moom sama am na lu ko lu mu laaj ci anam ci ne ba tuddee saar bi julli li muy tekk mooy ko julli mënta parce que loolu mënuñoo tuddee dara benn cër ñu tuddee ko mbir lu dul ne lan mbir moom dafa nekk lu takkoo ak mbir mu ak lañ ko tuddee ci anam goo xamante ne bu amul mbir ma du am voilà bu ñu ne la ñaata bopp nga yor maanaam bu ñuy wax xar yi ñaata ah? hmm. wala ñaata bopp fi ne muy nit ñi ñaata biir lay dundal buñ naan fakku raqaba goreel goreel jaam dañ naan goreel baat bi te pourtant parce que lu tax yii yëpp mënta am lu dul nit ki am dund gi am loolu moom mooy ne julli faatiha manu cee ñekk te loolu mooy li gën a dëgër insha allah taala mooy waxu jumbu kooku ànd ak ne dalilu xaraf yi dëgër na waaye loolu mooy li gën a dëgër amma faqra'u ma tayassara min alquran jàng leen li gën a jàppale ci alquran loolu ci saar yi njëkkee wàcc la bokk mu muzammil la comme niñ ko xamee te li koy dëgëral euh, maanaam te ginnaaw gi yenente bi sallallahu alayhi nee na la mais jàngal faatiha dégg nga ala kulli loolu moom mooy benn masala bi beneen masala bi fi am moom mooy ndax ci rakka bu ne lañ koy tari loolu fuqaha xanafi bon loolu leer na ci ñu ñoom rakka njëkk bi duñu duñu maanaam rakka yëpp ñoom tari faatiha waru ci waaye ci biir ñi ko waral fuqaha maliki rahmatullah alayhim euh, ñoom ñoo am ci seen biir masal ñu xaajaloo ñaari xaaj ngir ne Euh, xaaj bu njëkk bi ñoom dañoo ne ci yëpp la war comme ni nga xam ne noonu la nekk mazhabu Shafi'i ak Hanabila yi ak Zahiri yi rahmatullahi alayhim amma fuqaha maanaam mbooloo ci fuqaha Maliki rahmatullahi ñoom dañ ne déedéet dafa war euh, war ci benn rakka kese ndax Yonent bi sallallahu alayhi dafa ne laa salaata liman lam yaqra bi fatihatil kitab julli du am du wér lu dul ci ki nga xam ne jàng jàng na fatihatul kitab loolu moo tax ñu ne te bu fekkente ne dañ digle benn mbir ba pare ñu ne du wér lu dul lii am ci mbir moom rek lay wér maanaam ci mbir moom rek lay am maanaam ci mbir benn yoon bu ko amee day daal baax mooy kon ku ko fàttee moo tax ñu laaj imam Malik bokk na ci liñ ko laaj ne ndax ki fàtte fatiha ci rakka bu njëkk bi nu muy def mu ne da koy tari ñaareelu rakka bi eh, ci rakka yi ci mu jeex maanaam su ko fàttee ci benn bi da koy da rek mu jeex moom moom noonu la leen noonu la ko te loolu ci ci ci laaj yi ñu ko laaj la euh, te loolu day dëgëral ni kon benn euh, ne ne moo tax mbooloo ci Maliki rahmatullah wax loolu ne ndax ngir ne war na rek tegtalewul ne day war ci rakka bu ne waaye lii tegtale ne dafa war ci rakka bu ne nag te loolu mooy bu jumhur mooy li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wax an zalika fii salaatika kulliha na nga def loolu ci sa julli gi yépp bi mu melalee benn rakka bi beneen bu ci des moom mooy Euh, bokk na ci li ko mooy xadis Seydina Abu Qatada bi tamit radiyallahu anhu Sahih Imam Muslim ne ni Yonent bi sallallahu alayhi digle ñu julli maanaam fa maanaam ñu tari Fatiha ci rakka bu nekk maanaam te Yonent bi sallallahu alayhi noonu la daan jullee rakka bu nekk da daan tari Fatiha dégg nga kon ci tënk beneen bi ci des moom mooy ne julli julli yi yëpp nag muy julli euh, juróomi julli yi safa witar julli lan euh, lépp day am day am fatiha voilà ju ñaari julli ak ñaari eid yi ak salaatul janaza tamit day am fatiha comme li nga xamante ne loolu moom mooy wax jumhur rahmatullahi alal jamii da nga mun xadis maanaam bi bokk na ci euh, saar bi kii xadis bi mooy ne sóoratul fatiha bokk na ci ay turam mooy fatihatul kitaab loolu tamit bokk na ci turam comme li nga xam ne noonu la ko ne noonu la ko waxee fii dégg xadis euh, bi imam al buxaari rahimahullahu taala xadis euh, bi fii rek la ko indi euh, imaamu muslim rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 394 ñetti yoon imam abu daawud xadis numéro 822 ak 823 imaam eh, at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 247 ak 311 imaam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 910 ak 911 imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 837. imaam Ahmad ibn Hanbal dina ko xadis numéro 22677 22694 22743 22745 22749 ak 22750 kon eh, dañu gis ne xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo ko. rahimallahu al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilay haddathanaa Muhammad ibn Bashaar moom la ñu dàqantelee Bundaar moom mooy Muhammad mooy imaamu la jëlaat waa Basra rahimahullah imaam Abu Bakr Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi rahimahullahu ta'ala di imaam bu mag ñu gën koo xamee ci Bundaar. rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 167 année ginnaaw gàddaay wa sallam génn àdduna 252 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam ñu ngi ci moom sax sëriñ la ci waa ashaabu kutubu sitta mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy Abu Sa'id Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu taala al imam al Euh, amirul mu'minin radiyallahu taala anhu di ku jéemi ku màgg kooku moom it imam la waa Basra gane àdduna cent vingtième année génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an Ubaydillah kon maanaam nga gis ne waa Basra ñi ngi solo ñi ngi ñëw ci waa Madina manam ñi ci tegu ci wa Madina lañ moy abdullah ibn Umar ibn hasan ibn Aas ibn Umar ibn Khattab al-Qurashi al-Adawi al-Umari nga xam tane sa sëtu Seydina Umar ibn Khattab la radiyallahu ta'ala moy Abu Usman al-Adawi génn adna 147 147e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta an qala haddathani Sa'id ibn Abi Sa'id tamum moom Sa'id mooy abu saadin mooy dàqantalam wala abu saidin mooy dàqantalam muy said ibn kaysan al maqburi yi rahimahullahu taala di imam moom tamit di borom moom bu mag waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam génn àdduna 123e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an abi mu jël ci baayam te moom mooy kaysaan muy dàqantale mooy abu said al maqburi yi maanaam moom ak doomam ñoo bokk ni leen di dàqantale said ak abu said dégg nga Abu Saïd dégg nga même Kaysaan la tudd moom mi ngi génn àdduna euh, téeméeréelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yaa neen al yi ngir ne ñoom daan gas bàmmeel yi armeel yi moo tax ñu al maqbuur yi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi cinquante-neuvième année boobu hmm. ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi 326 moom mooy muttafaqun alayhi imaam al-Buxaari imaam Muslim rahmatullahi alayhi ma bokk ko dëppoo imaam al-Buxaari wéetoo ci 93 xadis imaam Muslim wéetoo ci 98 xadis ci Musnad Musnad imaam Ahmad am na ci 3870 xadis mu Seydina Abu Hurayrata radiyallahu mu ne anna rasulallah ndaka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa daxala dafa dugg al masjid a jàkka ji fa daxala mu daal di dugg rajulun benn waay ba mu jullee mu nekkoon fa maanaam kon loolu moom mooy julli bi nga xam ne moom mooy tahiyatul masjid mooy li nga xam te ne mooy li yoon nit ki bu duggee ci biir jàkka ji mu daal di julli ñaar rakka ngir nuyoo ko jàkka ji comme yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ku dugg ci yéen na julli ñaar rakka laata muy toog dégg nga loolu mooy li teggin ci ak jàkka ji te loolu wu waxoon nañ wuute yi am ci borom mooy rahmatullah alayhim ci bu dee waxtu wa dañuy tere ko ca naafila te waxoon nañ li ci gën a euh, Euh, waxoon nañu ne euh, li gën a sàmm mooy ñàkk kaa def waaye li gën a dëgër mooy def ga comme ni nga xam te ne muy mazhabu xanaa Shaafi'i ak xanaa bi lay rahmatullahi mu ne fa sallama mu daal di sëlmal mu daal di nuyoo ala nabi yi ci yent bi sallallahu alayhi wa maanaam kon ñu daal di gis ne fii tamit ne maanaam boo dugg see ci jàkka ji nga nuyu jàkka ji moo jiitu ngay nuyu nit ñi loolu nag mooy li nga xamante ne moom mooy li gën a li global waaye ci xadisu euh, Euh, Seydina euh, euh, Kaab ibn Malik bi radiyallahu taala anhu gisoon nañ ko ne bi mu ñëwee dugg si ci jàkk ji ci fajar fekk ñu wàcce woon aaya yi doon yi ko doon mooy wa ala salaatati alladina xullifu ah bi mu dugg si maanaam dañoo nit ñi dañoo ñëw teeru ko laata mu julli ñaari rakka maanaam loolu waaye li nga xamante ne moom mooy liy yoon maanaam li nga xam ne bu dara xewul te mu nekk ci situation bu normal Euh, mooy nga ñëw ci jàkk ji nga julli ñaar rakka bala nuyu kenn ku fa ne maanaam ngir ne borom bi subhaanahu néegu yàlla nga ñëw borom bi ngay borom néeg bi ngay njëkk a nuyu mooy ci nga moom moo tax moom bi mu ñëwee mu nuyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa radda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam delloo ko ko moo loolu moom mooy wane ne te te gis na ni ni mu jullee baaxul na mu jullee baaxul te yenent bi sallallahu alayhi wasallam fay na ko nuyoo quand même laataa mu koy leeralal mbir mi loolu moo lay wan ne fay nuyoo dafa nekk lu war maanaam nit ki bu la nuyoo nga fay ko nuyoo gi moom sunna la waaye fay nuyoo moom farata la dégg nga te li lu tolloog lam la nuyu nga koy nuyoo wala lu ko gën a kawe wa iza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha képp koo xam ne bu leen buñ leen nuyoo ci nuyoo na ngeen nuyoo ci nuyoo gu toll noonu wala boog ngeen de bu ko ëpp bokk wala boog bu ko gën a rafet wala ngeen delloo ko maanaam ku ne la asalaamaaleykum asalaamaaleykum laa budda nga wax ko ko waaleykum salaam boog laa budda nga wax ko ku ne asalaamaaleykum wa rahmatullah yow mënut a mënu ko ñàkk wax salaam wa waaye nag boo yeesoo foofa ah, bu bu waxee wa barakaatu ba yegg ba foofa yow nga wax wa barakaatu rek jarul nga yegg la ci leneen waaw ah, dégg nga ba nga xamante ne moom la kon bi mu duggee ci jàkka ji. nee na daxala mu dugg kon maanaam bi mu bi mu bi mu ko nuyoo faradda mu daal di koy delloo wa qaala mu ne ko irji' delloo fa salli na nga jull nga julli fa innaka woo maanaam yow li nga def tuddul julli maanaam mooy ne ndekete kon ah, ah, kon ndekete nit ki dana julli julli gu taxaw te fekk la mu def tudd julli lool moom mooy ne xaqiqa maanaam am na julli bi waaye sixa xam moo fi amul wérub julli gi moo fi amul moo tax mu ne ko fa innaka lam tu salli yow maanaam mooy julli woo comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise kon loolu day dëgëral mazhabu jumhur rahmatullahi alayhim ci lan xadis sayyidina Ubaada ibn Saamit radiyallahu taala bi ñu romb te ne la salaata saxiixa la ci jubloo ba nga xamante ne dégg nga mu ne fa raja xadis bi la ñu di def xadisu mu siiw li salaatihi noonu siiwee ci borom ko xam ne rahmatullahi alayhim maanaam xadisu kii nga xam ne moo doon ñaawee julli dégg nga fa rajaa ah, mu daal di dellu yu salli muy julli kamaan nag xam na nga xam te ne sallaa noonu la jullee woon maanaam ba mu delloo daa defaat exactement la mu def su ma topp jaa amul ñëwaat fa sallama mu julli mu nuyuwaat ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moo lay won ne tahiyatul masjid moo war a jiitu nuyoo bi loolu moom moo du mu nuyu julliwaatee dafa ñëwaat nuyuwaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg nga euh, Euh, dégg nga fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko irji dellul fa salli danga julli waaji fa innaka li wér boobu mooy yow lam tusalli julli wuloo loolu mu wax ko ko salaasa ñetti yoon maanaam mu dem julliwaat ñëwaat mu naan saa yi julliwoo ba nga xamante moom la ko wax ñetti yoon fa qaala mu ne ko wallazi waat naa ci nga xam ne ba'athaka moo a yabal bil xaq ci dëgg allah maanaam lii maanaam mooy teggin ko mat sëkk bi nga xamante ne moom la am mënoon na ni ko ah, man nag lii laa mën a ah. xam nga lan la man lii laa man man daal di toog déedéet waaye dafa waat ci nga xam ne ci dëgg te loolu day tegtale ne maanaam daf koy war d'abord ni ko dama laa gëm te gëm naa ni yàlla mi nga xam ne moom moo yàlla moo la yónni te ci lim la yónni yëpp dëgg la te daf la yónni nga wàcc dëgg yow nga nekk nitu dëgg nga nekk yow ci sa bopp jëmmi dëgg sallallahu alayhi loolu laa lay euh, waaye loolu maanaam loolu tamit dafa bokk ci teggin maanaam yi nga xamante ne moom la ñuy waxee ak nitu yàlla yeeg borom xam-xam yi rahmatullah bi nga xamante ne mu ne ko maa ahsanu ra man manuma xayrahu lu dul lii kon nag fa àllim nii xamal ma maanaam wax wax ko d'abord ne ko reconnaître na te lool tamit dafa bokk ci teggin yu mag yi ci ki nga xam ne mooy sóobu ci yàlla ak ki nga xam ne mooy muy reconnaître moom dafa am ay manquement ba pare dafa xam dafa reconnaître ne moom xamul am na lu bari yu ko réer waaye du nekk koo xamante ne day wane tout le temps ne moom xam na et que xam-xamam mat na duy wane tout le temps ne moom de façon lii lay def te nii la koy doxale te ak leneen lu mënti ñëw moom de toute façon après yéen yéen a seet mais man moom lii laay def jeex na maanaam déedéet loolu foñu ak rëy loolu moo tax doo fekk ñaare koo xamante ne euh, dafa am yenn euh, euh, maanaam maanaam doo fekk ñaare koo xamante ne jikkoom dafa ñaaw wala yu mel nga fekk ci moom rëy doo fekk ci moom tamit ti koo xamante ne tamit jikkoom dafa rafet lu dul ñaare di nga fekk doo fekk ci koo xamante ne maanaam dafa riir carrément xamul. te buggul te te te te du te du sàkku xam-xam loolu di nga fekk ci moom réer di nga fekk ci moom tamit naka noonu doo fekk kuy sàkku xam-xam lu bari lu dul ne di nga fekk ci moom ñaare ak woyof ngir ne xam-xam comme ni nga xam ne noonu la ko moom Mujaahid waxee woon rahimahullah dafa réer diggante ñaar mooy rëy ak ah, ak ak ak ak kersa maanaam am kersa bu ëpp guy tax nit ki du sàkku xam-xam waaye tamit rëy guy tax nit ki du nangoo sàkku xam-xam. ndax jàpp na ne xam na ba pare te nanguwul ku ko yokk dara maanaam loolu nag dafa bokk moo tax bokk na ci défaut yi gën a mag yi tax nit ki du yegg ci yàlla jamais mooy rëy googu maanaam jàpp ne xam naa euh, te même boo koy xamal sax da lay wan ne la non non man xam naa ba pare te tout le temps day jàpp ne moom moo gën a xam ni nit ñi na ci li gën a euh, euh, loolu tamit bokk na ci liy tax nit ki ci yàlla mukk mooy lu fait que ak tamit xam-xamam du leer jamais. te xam-xamam du yokku mooy yàlla di dindi barke ci li muy jàng te du yokk mukk xam-xam mooy koo xamante ne tout le temps boo ko buñ maanaam bu tax nekkee ki muy ki koy jàngal daf koy wan ne ko lii nga may wax mës xamoon naa ko ba pare mësoon naa koo dégg mësoon naa koo jàng naam léeg-léeg nag euh, laaj par rapport ak li nga xamoon ak yu mel noonu loolu ayut waaye tout le temps ngay wane ne maanaam lii de façon xamoon naa ko lii maanaam et cetera yooyu noonu loolu day tax nit ki maanaam ki lay jox xam-xam bi du la ko jox loolu day tax du la ko jox parce que lu tax parce que comme xam nga ba pare yow yaa xam nga moo tax du moom du sawar ci jàngal la lu mu la bëgg jàngal lu bees da koy mujj parce que day jàpp ne de toute façon euh, da nga da nga ba mu loolu moom moo tax loolu bokk na ci musiba yi dégg nga mu ne wala si waat naa ci ki nga xam ne baasak moo la yewal bil xaq ci dëgg mooy tamit kuy waat day waat ci yàlla. dégg nga wala mu noppi comme ni ko yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxe ne maa ahsanu rafet man manuma ghayrahu lu dul kon nak fa àllim ni xamal ma ak rafet ni mu waxe and ak ne xamut ñaata nit ñoom ño nekk ño xamantene dañuy tuddé seen bopp borom xam-xam te amuñu jikko ju rafet ji dégg nga mu ne fa qala mu ne ko iza qumta yenente bi sallallahu alaihi wasallam diko jangal julli ni ko iza qumta so jógee di taxaw ila salati dem ci julli fa kabbir na nga kàbbar lol day tegtale ci anam gu leer ci ne kàbbar armal dafa nek tamit ponku ci julli te ma ponku la ci julli lim ne ko iza qumta bo joge ila salat dim ci julli moom mul ci lu dugal yene lol tamit day tek sama yene moy ponk bu jekk bi manam mu tek kabar ama summa mu ne ko iqra nanga nga na nga kàbbar na nga nga kon kabar gi ak taxawayu kabar gi mu ne summa tok iqra na nga jàng maa la nga xamne tay tayassara mo japp ni ma ak and ak yow min minal qur'aani ci alquran manam lol mom moy li nga xamne ne moom la waxoon nga ne ci amna ci riwaya mu ne ko lan fatiha ak la japp ni ci alqur'aan loolu tamit day dëgëral ne li nga xamante ne euh, moom mooy ne euh, li nga xamante ne moom mooy ne euh, kon faatiha dafay war waaye tamit maanaam jàng alxuraan bi ci boppam dafay daal di war te ni mu waree ci rakkaa bu njëkk bi daañ ko gis ci jeexital bi ne noonu la waree ci mboolem rakkaa yi naka noonu faatiha bi ni mu waree ci rakkaa bu njëkk bi noonu la waree ci yeneen rakkaa yépp et cetera mu a somma summa topp nag erkaa na nga naga roko hatta meta mbete tattuma inna nga dal raaki ande aji roko Manam nga dal ci sa roko gi nga xamantene mom ngay roko su top irfa nga yegati ko hatta meta tata de la nga yem mo xaa iman di aji taxaw manam fi nak motax nga gis bokko na ci liñ doon tuddu ci lan ci farata manam ci farata julli moy al ak tomaaniina ak al i'tidal Manam hadith bi da koy tegte Manam di deugural li nga xamne mom moy mazhabu maliki rahmatullahi ak ñi depp ak ñom Euh, rahimallahu jamii maanaam nga yem moo nekk qaa'ima di aji taxaw na mooy nga dal mooy nga dal ca ba nga xamante ne danga cay dal ci anam goo xamante ne képp ku la gis dana xam ne kii lii la def te dal na ci waaye du def koo xamante ne bu defee ci dara balaa mu kii maanaam ñu xam ne sax kii lii la bëggoon a def amaa li nga xamante ne moom mooy eet eet daal moom mooy nga taxaw ci taxawaay bu jub xocc maanaam doo wengulu doo taxaw wengulu def nii wala nga wala nga def yooyu déedéet maanaam jublu ci kanam wala nga wengu li nii wala nga teg sa benn tànk bi nii teg nee et cetera yooyu beneen bi ci des na la déedéet kenn du def doxale noonu dañuy teg dañuy yemmoo mu ne su ma topp nag judd nga sujjóot xattaa mbete tatt ma na ah, nga daal di ah, dal saajidan di aji sujjóot maanaam mooy ne sujjóot gi tamit da nga ciy dal su ma topp irfa nga yëkkatiku xattaa mbete tatt ma inna nga daal di dal jaalisan di aji toog mu ne ko wafaal te na nga def zalika lii fii salaatika ci sa julli kullihaa lépp maanaam loolu day tegtale ne ponk yi ni mu waree noonu la waree ci lépp maanaam ponk bi ni mu waree ci julli gii maanaam nii noonu la waree ci julli yëpp léegi nag mu daal di des su may jàng alquran maanaam fi mu ne ko iqra na jàng maa tayassara li nga xam ne jàpp na maaka ci ànd ak yow min alquran ci alquran maanaam loolu kon day tegtale tamit ne euh, ki nga xamante ne maanaam lii euh, ki manul bu fekkente ne riwaaya bi comme ni ko xanaa fii di sukkandikoo la rahmatullah alayhi mooy ne ki manul euh, loolu ci liñ ko mën a firi mooy ki manul faatiha ki manul faatiha day jàng lu tolloog loolu ci alxuraan comme ni ko borom xoxo bi waxee rahmatullah beneen bi ci des moom mooy jàng bi su fekkente ne maanaam foog làmmiñ gi yëngatu comme ni ñu ko waxee waaye ñaari condition maanaam borom xam foofu dañ cee wute. li nga xam ne moom mooy waxu jumhur rahmatullah mooy nit ki foog muy wax ba dégg moom boppam jarul muy wax ba ñeneen ñi di ko dégg mais moom boppam na ko dégg comme ni ah, ngi dégg bopp waaye ah, foog loolu mooy waxu foog xanafiye shafi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim amma fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim dañ ne déedéet yëngatuk làmmiñ ak tuñ yi rek doy nañ maanaam même bu fekkente ne yow déggoo sa bopp loolu rek doy na waaye nag loolu mooy li mënta ñàkk ci waxu mboolem borom xam nga rahmatullahi nit ki say su taxawoon te tari faatiha te ni mu ko taree mooy cim xelam rek la ko tari julliwul julliwul dégg nga loolu euh, moom mooy beneen bi ni ki loolu bu sujjóotee bu dee xelam rek la koy xalaat yi muy wax ak yooyu yëpp mooy waxu ko dégg nga euh, loolu kon moom mooy li nga xamante ne euh, mu ne kon na def lii ci si julli yëpp lii nag day dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu jumhur rahmatullahi alayhi muy mazhabu Shafi'i ak Hanabila ak ñi dëppoo ak ñoom ci Maliki rahmatullahi alayhi te mooy mazhabu Zahiri rahmallahu al-jami' mooy ne Fatiha bi dañ ko war a tari ci lan ci rakkaay yëpp loolu tamit day tegtale tamit ne li nga xam ne muy mazhabu Hanafi rahmatullahi mu ci ne ñaari rakkaay yu mujj yi jë maanaam Fatiha du ci lu war du ci farata maanaam ak ci nu mu tudd jàng bi ci boppam xiraa bi du ci farata loolu tamit xadis bi daf koy dajji maanaam mooy naan xadis bi da koy da koy dindi. ndax xadis bi lu mu wax daf ne nanga def lii ci sa mboolem julli yi dégg nga euh, bi kon euh, mooy xadisu musi uli salaatihi imam al buxaari rahimahullah taala ni war na ko xadis numéro 793 euh, xadis numéro 6251 xadis numéro 6667 imam muslim na ko xadis numéro 397 imam abu daawuda xadis numéro 856 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 303 ak 2692 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 884 imam Ibn Majah indi na ko xadis numéro 1060 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 9635 dañu gis ne kon waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ xadis bi rahimallahu al-jami' نعم، قال بالاسناد المتصل في اول الكتاب لي حدثنا ابو النعمان تيموي الامام ابو النعمان محمد بن فضل اس سادوسي رحمه الله تعالى ديوا بصرا رحمه الله تعالى بن حميد عارم مي حمد موي داكانتال موم مي ген ادنا 223 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي نيت ادي مجي نا دا فا نيكون كو خامتاني دا فا جاخاسو لول موم موتاخ كيب كو ديغي تي موم آه، atum 220 sa sa sa li nga dégg ci moom wér na comme li nga xam ne noonu la ko Abu Hatim waxee rahimahullahu taala imam al-Bukhari na ci moom téeméeri xadis imam euh, maanaam euh, waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp soloo nañ ay xadisam ba mu des imam at-Tirmizi te moom Abu Nu'man moom rek moo tudd nii ci euh, asxaabu bu sitta ba mu des keneen mooy Abu Nu'man bi nga xam ne al ibnu Abdullah al-Ijli bi nga xamante ne imam at-Tirmidhi ci kooku la solo waaye solowul ci Abu Nu'man Muhammad ibn Fadl as-Sadusi dégg nga rahimahullahu taala te waaye imam beneen Abu Nu'man al-Hakam ibn Abdullah al-Ajli moom siqa la waaye rubbama axta léeg-léeg day faral day day di juum mu ne qaala xaddathana Abu Awaana gisoon nañ ko tey lañ ko gis de al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri Yashkuri rahimahullahu taala mu ne an Abdul Malik ibn Umayr moom tam gis nañ ko léegi an Jaabir ibn Samura radiyallahu anhu gis nañ ko léegi xanaa qaala qaala Saad mooy Seydina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu moom tamit gis nañ ko léegi mu ne kuntu nekkoon naa usalli di julli bihim ci ñoom maanaam moom mooy ci xew-xew bi ñu tuddoon ci njàlbéenu jotaay mooy bi ñu ko mu ne doon naa leen julli bihim salaata julli rasulillahi ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa si salaatayl yi maanaam mooy ñaari rakka ñaari julli ah, ngoon gi maanaam lii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah taala indiwaat ko ngir leeral ne Eh, ñaari yi mbir mi nii la maanaam muy leeralaat di indi yeneen mbir baat kàddu yoo xamante ne amutoon ci xadis bu njëkk bi mu ne laa axrimu musuma dañ an xaa walliif ko maanaam arkudu eh, di denc arkudu di dal fil aw uula yay ni ci ñaari yu yi wa axdifu te damay ci ñaar mujj yi dégg nga maanaam ñaari yu njëkk yi dama koy wax mu nekk lu di ko taxaw ci mu yàgg ñaari mujj yi dama ci dama ko dal dama koy woyofal loolu euh, li nga xamante ne euh, moom euh, léegi li nga xamante ne mooy riwaaya ab imam Abu Dawud rahimahullah ci beneen xadis bi mooy bi ñu romb sànq bi nga xamante ne yent bi saa sam daf ni julli du am lu dul faatixatul kitaab am ba pare daal ne ak lu ak lu niiw ci alquran maanaam ak lu jàppande ak moo maa tayassara min ak lu jàppande ci alquran lool moom moo tax moom fuqaaw xanaa bi la raxma ak zahiri yi rahmatullah alayhim maanaam ñu ne euh, li nga xamante ne moom mooy li gën ci julli maanaam mooy bu ñu jullee euh, maanaam ñaar rakkaa yu mujj yi dañ ci tari faatixa waaye dañ ciy tari saar wala boog ay aaya maanaam ak tamit euh, ne faatixa tamit ci saar bu ci aay bu ne saar bu ne julli rakkaa bu nekk faatixa kese doyu ci ci surtout ci ñaar rakkaa njëkk yi maanaam ñaar rakkaay njëkk yi dañ naan faatiha waaye mu am loo ci teg loolu moom moo tax euh, euh, mbooloo ci xanaa bi lay ak zahir yi nekk ne mooy li war maanaam mooy lan mooy faatiha bi moom moo war waaye leneen liñ ciy tegit lu mu niiw niiw na am loo ca teg yow dégg nga maanaam euh, dégg nga waaye daañ gis comme niñ ko waxee ci xadiis Seydina Abu Qatada bi radiyallahu taala anhu bii di ñëw ne danañ jàng faatiha waaye daañ jàng tamit lan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 والحمد لله رب العالمين